góorgóorlu woote sëriñ bi en tant que talibé sëriñ bi woote si màggal gi laajoon lu toll si juróomi millions yi masque bi ma ñëwee joxe na un million masque yu topp juróom benn téeméer jox addiyee si Ahmadou Bamba wax sëriñ bi ni ko buñ si àggee ci màggal gi juróomi fan ak juróomi fan bu màgg jàllee dinaa mobiliser ñaar téeméeri sane si dëkk bi ñu yor ay masque ku ñu gis te takkuloo masque ñu yëkkati ko takkal la loolu lépp ci liggéey sëñ ak ndigalu sëriñ bi la am mbégte bu baax a baax ci li sëriñ Bassirou Mbacké mu yor kaddu xalif général mu mourides wax ci ñun dañuy yokk rek ngóor a ak jom te xam ni dëkk bi rek moo ñu ñor lu am dëkk bee ñu ko may kon loolu moo war a tey jii ma indi ni ma ko waxee mooy région bu nekk joxe naa fa 10 000 masques indi naa fi tey 63 900 masques boole bu nekk mu nekk deux cent trois mille masques yu topp muy ñaari téeméeri junniy masque joxe naa ko kon loolu mooy li nga xamante ni moom laa waxoon ak leen li nga xam des nañu war ko àggale di wax rek ni maa ngi laaj si appel mboolem taalibe yi képp koo xam yaa ngi màggal si di ñëw Touba li sëriñ bi wax muy fagaro nga def ko muy takk say masque yor sa sel ndax loolu ndigal la boo xamante ne sëriñ bi ko joxe ndigal loolu ñun ñëpp nañ ko appliqué di waxaat aussi tamit di laaj si appel di interpeller bi ci manque ndox bi am si dëkk bi ku ne xam nañ Touba fi may wax ak yow ndox mi dafa bari quartier yu baree bari yu manque loolu nag li ko waral mooy pompe machine yi maanaam ñoo paan ci forage yi te fii nga xamante ne nii moo laa lay wax mooy fii ak màggal gi mun ñoo réparer forage yooyu noonu kon maa ngi leen di ñaan ñu indi ay seetlu yu doy te taxu askan wi ndax population bi soxla nañu ko te sonn nañu di wax tamit ni dëkk bi foofu jaar tey dafa tooy ñu ngi nii continué di taw aussi tamit di wax ni maanaam lépp lu ñu mën a def pour jàpp na Touba si kanam ci liggéey bi ñoo ko def ndax sëñ bi képp koo xamante ni tey yaa ngi ñëw dëkk bi bëgg nga boo fi ñëwee ni dëkk yëpp mel dëkk bi mel ni ndax dëkk sëñ Touba la kon loolu mooy li nga xamante ni moom laa ci di sant yàlla bu baax tamit di leen sant aussi seen taxawaay yéen ñëpp. waa xam nga sëriñ bi daa baax rek ndax xam nga moom même bu ko waxoon war na ko wax ndax sama waajur la sama sëriñ la ba pare moom li mu yor a installé ndax moo yoru kaddu yoonu murit bi nga xamante ne ay wax jum na sëriñ bi nekk poroxaan maa ko wax mu ni ma xaar ma daaru minam ba ma ñëw ma dem daaru minam waxtaan ak moom mu ni ma man yëguma tinu ma maa la yar maa la jàngal xam naa taalibe gi nekk si yow taalibe googu moom la sëriñ Basiru di feddali ndax sëriñ Abdou Dia mii suñu waajur nekk rakki soxna ja taawu sëriñ Touba xam na ni lu nekk mën a jóg ci lu mën di doon ba mu des maanaam ci njabootu sëriñ Abdou Dia kon loolu la sëriñ bi di leer wane ni loolu mu doon wax taxutoon ñu ñuy wax te ñun li ñu doon wax bokkul ak ñu ko nit ñi gisee kon yaakaar naa ni loolu mu wax noonu rek lañ si mën a mooy rafetlu ko ñaax nañu wax nañu dëkk baa ngi nii li ma fi yéen liggéey xam na ko incha allah li ci kanam rëwuli bët li ma soxla mooy ñu dénk ma maire bi jox ma ko département ma liggéeyal Touba incha allah. honorable bala ngay jeexal ñu ngi xaar président samedi samedi xam ne digg woon na ko fi defu ko loolu. waaw moom buñ xaaree war na fi ñëw buñ ko fi xaar war na fi ñëw. surtout dafay ñëw xam nga loolu li ma si wax mooy opposé Salla nekk tamit vice président commission de loi ku ne xam na ni commission information bi ñu ubbi pour assemblée nationale mu leeral mbirum mbënd mi muy 760 milliards yi man mii di waxawee si commission boobu laa bokk def nañ ko di conduire bi ñi ngi war a auditionner ministres yi ak directeurs yi fi war a ñëw Touba dana bokk si ñi nga xamante ni dugaloon na fi maanaam xaalis boobu si mbirum inondation bi danañ leen woo assemblée daan wàcc si Touba ak si terrain ak fu mën doon pour que ñu leeral xaalis boobu fan lañ ko dugal jël ay experts yoo xamante ne asamsa moo koy fay pour que ñu leeral président tamit bu ñëwee ñi ngi koy ñaan rek mu xam ne dëkk bi ab dëkkam la li sëriñ mun taxa wax si président nag man mënutuma en tant que taalibe en tant que doom ma siy waxaat yenn wax ju ñaaw ndax sëriñ bi wax na li mu wax ba pare sa jërë ngeen